Ibrahima Sall lay wuyoo moom nag bu mu jógee Mali ba léegi daal beneen communication lañ gis ci moom xaw ma nag lu mu gis Mali waaye daal ma ngi dugg ci wax yu ëpp yu nekk ma ngi koy wax bari na mu metti nag ñoo xam ne daal nee nañ Ibrahima lu tax waxam ji mu di ko wax ndax war nañ koo xaar ci leneen ak ci yeneen xam-xam yi muy wax lu lii mu dëkkee démb nag lii la ñu dénk ñu déglu ci as lëf ci la mu wax te dellusiwaat. dem nañu ba bi ñuy visiter. palais ay ca ca ca dem nañu ba bu ñuy visiter Macky Ousmane Sonko mi ngi may seetaan dem <laughs> nañu ba bu ñuy visiter palais bi xam nga dañ dalañ ko visiter lo Macky Sall tekki ay veram tooñ fomp gi di tooñ Ousmane Sonko naan ko xanaa néeg bi ngay indi Adji Sarr Ousmane Sonko reetaan noonu ñu romb dem Macky Macky Sall bàyyi mu sedd ah. maanaam pour moment boobu mi ngi arrondir angle yi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi Ibrahima dégg ah Ibrahima jamono jooju nekkoon gis naa ci commentaire waaye ga am ñu naan jéggi daal jommal na leen waaye jéggi moom wees na leen a jommal di xuloog sa bopp Assane mhm. noo gisee Ibrahima ak ay révélation mhm. bii nag fii la fële dégg nga li wax mhm. bu dee wax ju am la sax kat moo ko war a wax ca pale ba jaaxal na ma ndax gisewul ak Macky ci li ma yaakaar gisagut Ousmane Sonko gisagut président jomaay maanaam fan la déggee wax jii nag ak lu tax muy wax wax yi muy wax daal dama lay bàyyi nga ñëw ci Ibrahima. waaw Ibrahima di wax dëgg yàlla damay kontaan ci moom lool. moom waaw. ca di rafetlu ay chronique am ak it xam-xam bi mu amee ak information yi muy amee ndax Ibrahima jàpp nañu ni moo ëpp information fii si Sénégal. ndax moom boo waxee mun na secteur bii fa laa nekkoon si wàllum yoon. Ah. pale bi nag yàgg na saa wax xañ na kon tey jii lii moo ñu waaye yàgg na saa wax gi nga gileem gañ fa yeewoo nag. waaw xale yañ fay dugal ak. yëpp gileem gañ fa suul. waaw lépp mi ngi koy référé te kenn waxu ci dara. léegi nag dañuy boole lépp rek gëm wala ñu boole lépp. Ah, moo tax man la ñëwal rek yow foo ñëw baax man damay rafetlu référation yi muy def. Hmm. di ko wax ne na gën a def référation. na gën a génn référation yi am si pale bi ndax ah pale ba lu fa yendu fanaan si Ibrahima Sall hmm. waaw xam na bu baax pale ba waaye xam na wàllum yoon it ni muy doxee. li muy mm-hmm. wax it boobu ba léegi Sénégal yi yëpp ñu ngi koy seetaan te kenn weddiwu mm-hmm. ñi muy wax it ay Sénégal lañ nekk si réew mi mu naan diw di tudd seen i tur di wax te kenn weddiwu kon nag dañuy mën leen jàppandeegun sa lam wax ba bañ a gis lu ko weddi kon daal nañu jàpp ni président Macky Sall loolu la wax Ousmane Sonko ni ko néeg bee néegu aji Sall. fan la war a mën a jógee. ah waaye Ibrahima Sall li muy wax lépp fan la am information la la wax. lii moom du information. de ah, kay. est xam nga information ko information rek mooy mooy ñu wax la dara rek liñ ko wax noonu kay information la. léegi li jàpp nga dañ ko ko wax. ah li mu wax wax nañ ma kay moom day xam xam na da sa pale ba gis nga gileem yi ñu fa yeewoon ak ña fa daan dugg ak lañ fa daan dugg ak pale ba la maîtriser xaj na mosu faa dem mais xam na pale ba bu baax a baax maîtriser na ko na muy doxee fi mu ne nii jomaay na mu fay fanaan ak du fa fanaan lépp mën na la ko leeralal. lu ñuy añeek lu ñuy reereek buñ jomaay génnee kan lay fekk si bunt bi lan loo koy wax ak lépp la xam peinture yi pale ba peinture yaag photo ak yëpp la fa Macky Sall bàyyeeg siiñ yaag yëpp xam na ko ñoom Cheikh Omar Diagne buñ duggee gan wet la ñuy duggee fa ñuy naane kafeek ndax fa ñuy fa ñuy taxaw ak nañuy yëpp xam na ko mais nag dañ ciy jox par tuuti tuuti buñ ko yàq dañ ko bàyyi mu continuer oh. hmm? lii maa ngi koy ñaan daal bu mu arrêté nañu leeralal palais bi ba mu leer nañ nañu mel ne fekk nañ ko hmm. danaa si gis <laughs> wax dëgg yàlla ku am information la ndax gis nga li wax si ñoom Fulbert ni leen rayee. waaw li mu wax si Moussa Fall ñoom donte jégguluwaat na sa sax. ah jéggulu na ci. waaw jéggulu ne Moussa maa ak it am na lu waxuma sa wax ci Bougane ak yëpp. waaw Bougane ñoom yooyu yëpp muy wax. nit ñi dañuy partagé rek di reetaan léegi bii nag nañ partagé. kon Ibrahima bi boo ko laajoon suñu studio bi li fi nekk ak micro rek mu wax la ko. waaw man bu ko ñoroon de bu subaa mu leeral. waaw am na information de. Ah. surtout wàllum yoon non wàllum la gën a am si policiers yeeg takk der yi. Hmm. policiers yeeg takk der yeeg militaires yeek ak sapeurs yeek ak ak wàllum justice. Hmm. ñooñu ñooñoo ko jox information yi man ñooñu nag dañ may war di jox nag. Hmm, bul ni ñooñoo koy jox. loolu la wax. ah waaw ok dama dañ maa war di jox man miit ni ñu joxe Ibrahima Sall ndax Ibrahima Sall doo nga leen xam. d'accord mhm. Assane kii Alaaji hmm. Ibrahima Sall de lii mooy ñaareelu wax wala juróomeelu wax yi muy wax ci loo xam daal man sooy bu su ma koy dégg damay tiit te damay jàpp ne du lu ñu war a wax. Mhm. Euh, man suma lii muy wax yépp su ma ko xamoon duma ko wax léegi loo jàpp ni moo jàpp Ibrahima ba mu toog ci pénc mi di wax yi wax yi nga xam ni man jàpp naa ni sax lu ci bari amut waaye Ibrahima Sall de li muy wut mooy euh, fés wax lu kenn dut wax pour jàpp ni looloo koy may lu kenn amut parce que waxam yii nga xamante ni bi moom la wax moom leer na ko ni wax ji te leer na ko ni ñi mu koy wax xam nañ ni amut ah. waaye terewut mi ngi koy wax <laughs> xam nga dafa am ñoo xam ni ci seen àddina bés boo leen tontoo rek maanaam am nañ li ñu bëgg bés boo leen weddee wala nga kii am nañ li ñu bëgg mm-hmm. parce que loolu rek lañuy ñuy wër maanaam nga tontu leen maanaam mm-hmm. moo taxit lu ne nañ ko xam Ibrahima Sàll waaw dafa ñëw biñ jàppee Ousmane Sonko euh, Ibrahima Sall génn pour wan la ne la du débat fi nit ñi di débat gaa yi ngi nekk ci debaa kii moom mi ngi nekk ca prison ba. waaw naan bi mu duggee aaya bi mu tari. <laughs> nii la def nii la def yëkkati kii am. waaw garde ko jox téléphone mu woote. waaw mu def lii def lii def lii léegi. fi mu nekk amut benn chroniqueur bu fa nekk maanaam terrain boo xamante ni moom dong moo fa ne. kenn du ko weddi. wala ku koy weddi. moom moo fa ne day créer benn terrain boo xam ne moom dong moo fay ne. <laughs> kooku du neex a wedde. waaw noo koy wedde. ah waaw bu dee aay bii la tari. yaa ngi dégg ku ñëw naa tari Ousmane nee na nee naa teg tànkam ci bunt bi def. nii daal di daal di alhamdulilah alhamdulilah <laughs> ne nii ne waaye xam nga léegi nekk na foo xamante ni bi yow léegi da ngay toog rek di ko dégg kay na non. <laughs> gars yi di par exemple nga sawaay li mu wax comprendre nga. <laughs> léegi tamit bu ñëwee lii ñu gis nii ñu gis ni kii ak loolu gars ak loolu léegi it faut mu yokkaat yeneen wax yoo xamante ni bi moom la fay dégg lu kenn du dégg moom doo nga koy moom rek koy dégg. waaw léegi bu defee dañuy yóbbu moo tax parce que ñoom ñële ñëpp déggoo ko ah Ibrahima mu ne waaw may bul ma dagg. parce que foofu mi ngi encadré kii beeg yooyu. waaw comprendre nga. Hmm. maanaam li muy wax fii kenn du ko mën a wet sàll nañ ko yóbbu caaro yi kii ko pigiir ko dóor ko ci pigiir pigiir ko newu fi de newu fi ah, waaw man moom jàpp naa ni ko li ko dal Mali la ko dalee li muy wax ni newu fi hmm? xamul la xamul li muy wax déedéet gars yi yóbbu kii hôpital caaro yi bii non <laughs> léegi wala bu mënta ñàkk alaaj parce tamit pareen saa yi du jàngat nit ki quoi hmm. xam nga saa yi dañuy bàyyi nit ki muy wax rek xam nga ñu mel ni am na ñu bari ñoo xam ne waru ñoo toog ci plateau yi ci jamono ji. non non waaye léegi bu mënta ñàkk alaaji bu mënta ñàkk li ma li li ma li may li may kiyee bi télé bi koy jox micro hmm. mooy am na nit ñoo xam ne bu leen def émission direct non non leen loo war a dindi nga dindi waaw parce que yii yëpp mais teg nit ci émission direct lu mu war a wax day wax lii xam nga ne soo ko enregistré woon doo parce que yi ngeen fi yëpp muy wax yi jàll xam nga du ay waxi nit hmm. waaw xeex bee metti woon nag waaw ah, vraiment ay dañoo jël ay booy dugal leen ci bërigo. lakk leen taal leen Sall même bi muy dem bi muy bi bi muy bi muy dem Mali. lan moo ko fi jëlee ba muy dem Mali lan la fi def lu kenn defut ba mu daw. dem dañ ko doon tëru gis na kii kii dem Mali mu génnoon damay dem Mali. waaw ci nga ni woon ci ay ruq-ruqaat ak kii. <laughs> gaa yi kenn tëruwu moo doon boppam naan maa ngi ci tabax bi laa fanaan bokk yi ci la waa ji ni woon comme tabax bi lay fanaan fu muy chargé téléphone. waaw kërëb kërëb maa ngi ci tabax bi nii maa ngi làqatoo gaa yi làqtuut kenn xam nga Ibrahima Sall lan la may fàttali. dama déglu euh, euh, kii oustaz Alioune Sall muy expliquer kooku nga xamante ni kii dafa toogoon ci kaw garab gi di dagg garab gi. Mhm. nee na bi muy dagg branche bi waaj na ko eh bu branche boobu daa da daggee da ngay daanu mhm. mu continuer dagg branche bi dagg mu daanu mu ne kii de borom xam-xam la. ku xamee ni bu ma branche bi daggee damay daanu bu dee ci moom ne ko yow kañ laay dee. waaw yow mi xam ni ki waaj na ko damaa xam kañ ngay mu ne ko yow mi xam ni branche bi moo ci toogee bu ma ko daggee mu daanu. Ah. yow koy wax nga waa ji daan na ko bu sa mbaam mi ngeexee ñetti ngeex nga dee mu dem maam mi ngeex benn mu daal di kii maam mi ngeexaat benn mu wàcc ci suuf ne bu waxee ñetteelu ngeex bi euh, xam naa ne bu may dee ci kaw day ñaaw mu daal di wàcc ci suuf maam mi ngaax mu daal di tëdd na dee na <laughs> tëdd tëdd gisut kenn mu wëlbatiku dem ci imam ba ne day yëgali waa dëkk ba ne leen moom bi mu faatu ba léegi gisagut kenn mu ñëw ci waa dëkk ba ne ko yéen man maa ngi dee boobu bënn ka nii maa mu ne ko foo dee mu ko maa ngi dee àll bàyyi kii boo ñëwee maa nga coroon garab ga daal di demaat tëdd gaa yi ñëw mu ne leen bu ngeen may suul suul leen ma fu amoon ni nit foo xam ne mi nit nekkoon na fa ba te mooy wax ba tey moom mooy wax <laughs> waaye léegi loolu mooy Ibrahima Sall mii benn la wóor na yàlla benn ah oui. Hmm? li nga doon laytaay nii yëpp fii nga jëmal. booy Ibrahima Sall perte la wóor na yàlla. mais gis nga alaaji léegi léegi léegi xam nga lan mooy pexe ci moom kon. ah faji <laughs> kenn mënu ko tere wax. ah kañ non da ah kañ da nga koy yóbbu fii fii laa la wax kii wu caaray bi nañ ko yóbbu. ki caaray fan dem bitim réew nga am. Ibrahima Sall nekkul fi hôpital militaire hôpital militaire bi. wóor na yàlla nekkul bi laay nekkul dama la bëgg a xamal ne nekk bu demee bitim réew ñëwaat moo di neen hôpital militaire ko caare ah mooy militaire mooy foofu am na fu ñuy fajee kii nañ ko fa yóbbu dóor koy pikiir bitim réew nag waaw kii ko parce que nekku fi mais alaaji kan moo koy ñëw ne ko yow mii kaa ñu dem yóbbu la hôpital kan moo koy da nga koy kii rek da nga koy mel ni ku ko invité émission rek <laughs> ne ko interview <laughs> déggal ki koy rawale moom di ko yóbbu Amérique déggal ki nañ ko faje Amérique kii di li mu bëgg mooy mu gën a def ay da koy da koy lool rek. da ko daan cas rek da ko waa na nga na xaar sa tool nag dégg <laughs> xam na ni xam na ni wax naa wax naa ko dëgg. xam na ni xam na ni wax naa ko dëgg barki yàlla xam na ko <laughs> xam na ni wax naa ko dëgg barki yàlla. gars yi ne Modou Mbaaw lay wax. Modou gars yi ne Modou ne yow de Mbaaw ngay wax. waaw doon xam naa mi ngi naan non saa naan xamee lii. naan ma. mais li ko dugg daf may alaaji Mali la ko duggee oh. nag. voilà. fii la ko duggee. fii fii la dugg ci tabax yi di périllé kii naan dama koy ñàkkanteeg gars yi kenn topp la yow ku kenn toppul ngay périllé di dugg ci ay ñax di génn ba dem Mali. <laughs> yaay fàllu bu premier ni cëppam Sénégal dina cëpp Sénégal la defaat élément nee daa am kuy ñëw këram ba waaw <laughs> xam <laughs> kenn topp ko kenn muy dox naan ma ñi ngi may nekku fi d'accord bilaay kenn topp ko léegi nag yii muy dégg nii xam naa attention de. Hmm. c'est que parrainage déedéet day am sooy bu gis nga parrainage hmm. nit di jékki-jékki sax am yoo xamante ni bii say imagination. ba dem ba nga jàpp ni lii ngay. lii dëgg la maanaam dañ la ko mu yow en personne da ngay jàpp ni. dañ la ko wax. ok xam naa wóor na yàlla te fekk ne say mbiri bopp la yooyu lay toog nag di wax ci plateau bi. Mhm. naan kii nee na lii kii nee kii nee na lii. li muy wax ni moom ci moom dëgg la de. Ah, mais moom dëgg la. waaw mais ah. dafay réer ci ay kii yoon quoi mm-hmm. parce que loolu feebar am na yu mel noonu am na kii yu mel noonu de maanaam nga jekki-jekki mel ni tey son moom moo wax lii ak lii fekk son bi waxu da fekk sama xel a ko enregistré voilà mais buñ ko kiiwul dina waxaat leneen lu gën a garaaw comme tudd na pale ba ba tudd néeg néeg diw bu ëllëgee nag dana waxaat leneen ah, nañ ko bàyyi ak wax ja du dana waxaat leneen parce que day gënal <laughs> kër. la ko dee dina ko dee dina comme yam nga ca néeg ba léegi loolu nga sénégalais yi comprendre nañ loolu jàllaatal